te mooy jullee néew tey dars bi nekk as sunnatu fi tasyiil janaza lan mooy sunna ci bu ñuy gunge néew bi démb ñoo ngi ci woon buñ ko gàddoo di ko yóbbu képp ku ñu romb nga toog danga war a taxaw suñuy dem tànk yi ñoo war a jiitu waaye mbokk ci sunnaay yóbbu néew amul lu ñu war a wax kenn warul yëkkati benn baat rawatina nag ay zikri di yuuxu ci Sénégal rek ngay gis ñuy yóbbu néew néew di yuuxu di sikkar nan dañuy tudd yàlla ñee di jàng ku nekk di wax lu la neex groupe bu nekk xeetu tariixa bu nekk booy yóbbu sa néew kenn du dégg ay kàddu ca kaw di yuuxu te loolu du sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa sunnatu fi tasyici aljanaza assamt wa tazkir almawt lii sunna ci yóbbu néew ci sunna yonent bi alayhi salaatu mooy noppi ak fàttaliku dee noppi rot na ci saxaaba ñetti palaas bëgguñu woon ku fa wax bu ñu yóbbu néew suñuy jàng alquran su noon yi dajee ak jullit xare am ñetti barab yooyu sahaaba yi nee nañ bokk na ci seen sunna ñoom lu ñu doon gëm di ko dund mooy ñetti barab yooyu kenn waru cee wax mbokk jullit yi léeg nga dégg ay nit di yëkkati ay laa ilaha illallah bu ñuy rob néew bi wala buñ koy yóbbu loolu du sunna ci bidaa la bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man ahdasa fi amrina haza maa laysa minhu fa huwa radd képp ku dugal ci diine ji lu ci bokkul dan la koy delloo bu yeboo ñu yuuxu ne laa ilaha illallah boo yee jàng xeetu sikkar bu leen neex bu yeboo ñu yëkkati kàddu gu leen neex bidaa la du sunna yonent bi indiwu ko te bidaa ku ko def yàlla def la koy delloo mbokk jullit yi bu ñu àndeek néew bi di ko gunge ba yegg ci buntu armeeli ñaan bi ñuy wax pour dugg armeel mooy assalaamu aleykum ahla diyaari min al muminin wal wa inna inchaa allah bikum laahiquun fa yarxamu llahu almustaqdimina walmustaaxirin asalullaha lana wa lakum al ñaan bi mooy ñaan bi nga xam ne bu ñëwee ba ci buntu armeel yi balaa ñuy dugg mooy ñaan bi ñuy wax yàlla na jàmm nekk ci yéen yéen waa kër gi yéen ñi way gëm yàlla yéen ñi ay jullit ñun ñi de bu soobee sunu boroom léegi nu fekk ci leen waay waay yal na yàlla yërëm ñi jiitu ci yéen ak ñi mujj noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa sunu bopp ak seen bopp al aafiyate mooy jàmm ak tawfiix lii mooy ñaan bi nga xam ne bu ñu ñëwee ba ci buntu armeel yi moom lañuy wax doog a dugg bu ñu duggee ci armeel yi su fekkee armeel yi nekk na armeel yu set yu organisé yoo xam ne mën nañ faa doxe tànku neen la gën mooy nu doxe tànku neen waaye bu dee armeel yi daa mel ne armeelu Sénégal yii ku nekk mën naa sol mën naa sole dàllam ku nekk na sol dàllam moo gën muy def tànku neen ndax xam ngeen armeel yi li ci nekk yéen samay mbokk jullit kon bu ñëwee ba gas pax bi suñuy dugal néew bi nañu yëg ne dafa war a jublu xibla bàmmeel bi ñuy gas dafa war a jublu xibla kon néew bi buñ koy dugal dafa war a jublu xibla njaganaayoo loxo ndey jooram maanaam ndey joor lañ ko war a dugale suñ koy dugal tànk yee war a njëkk a dugg ñu ne bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa sunnati rasulillah ñu daal di dugal néew bi buñ ko dugalee mbokk jullit yi ñu tekki buum yiñ ko takke woon ñu daal di tàmbali sotti suuf ci kawam sotti suuf si bàmmeel bi mën na nekk ñetti façon bàmmeel mën na nekk ñett façon bàmmeel suñu wàccee ci moom suuf si ba pare la sunna jàngale mooy ñu ñaanal ko yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bu ñu dugaloon ab néew ci bàmmeelam ba pare moom yonent bi la fa jàngale ak moom yonent bi la doon wax mooy istaghfiru li axiikum wasalu lahu tathbit fa innahu l aana yusal waay waay yéen ñi indi seen mbokk mi jégglu leen ko yàlla ñaan leen yàlla mu dëgëral làmmiñam waxtu wii ñu ngi koy laaj laa ilaha illallah ndeke bu nu dugalee nit ci bàmmeel rek ba delloo si suuf si rekk malaaka yi ñëw nañ pour di ko laaj yonent bi nee na nañu ñaan yàlla yàlla dëgëral làmmiñam istaghfiru li axiikum wasalu lahu tasbit fa innahu al aana yusal jéggalul leen ko waaye dugal ba néew ba pare di yuuxu di yuuxu laa ilaa allah allah di salleeru loolu du sunna du sunna lay sunna mooy la yonent bi jàngale sahaaba yi ne yaa rasulallah lu ñuy wax mu ne allahumma agfir lahu warhamhu wa thabbit mantiqahu inda su'al yow yàlla yal na nga ko yërëm jéggal ko yal na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj allahu akbar yow yàlla yal na nga ko yërëm jéggal ko yow yàlla yal na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj allahumma ixfir lahu allahumma thabbithu yàlla jéggal ko yàlla dëgëral ko juróom-ñaari laaj lañ koy laaj ñett yi fii ci àdduna ñetti yee ci àllaaxira allahu akbar allahuma axfir lahu allahuma thabbithu allahuma axfir lahu warhamhu wa thabbit mantiqahu inda sual yow yàlla yal na nga ko yërëm jéggal ko yow yàlla yal na nga làmmiñam buñ koy laaj man rabbuk wa ma diinuk wa man nabiyuk wa ma kitaabuk ñeenti laaj yaa ngoog maaza kunta taqulu ala al abdu muhammada loo doon wax ci ndaw li yàlla yónni woon mu tudd muhammad loo xamoon ci moom mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la jàngale lii mooy sunna li ëpp ci ni ñuy suule néew yi ci armeel yi bidaa la te bidaa yàlla du ko nangu yàlla daf koy delloo mbokk jullit yi lii mooy darsa tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaalu kamaalu mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa wa barakaatu.